xool Bachir lu mu ci wax li nga xam ne Maria tey ji daal boo bëggee dégg daal euh, dinga nga ne euh, ça résume en trois mots ou en cinq mots mm -hmm. en trois mots je suis candidat en cinq mots je ne suis pas candidat ñaar yooyu rek la <coughs> ñaareel bi aujourd'hui Macky Sall va rentrer dans l'histoire où il va créer des histoires mm-hmm. <laughs> loolu mooy am <laughs> ñetteel wi nga dellu ci lu doyen si wax mhm. effectivement quelles que soient les deux décisions c'est l'argumentaire qui la sous-tend qui le mhm. loolu moo ci am solo mooy bu nee waaw lu tax mu ne waaw bu ne déet lu tax mu ne déet maintenant nag ñun amuñu chance bu professeur Arona Ndofène am mooy côtoyer Macky Sall de l'intérieur mhm. ñun signe extérieur yi rek lañu mën a xool analyser signe extérieur yi lañ mën a xool jàngat te signe extérieur yu mu ma jox man dama bokk suñu jàpp ni Macky bu nee du ma candidat moo may bett waaye bu nee candidat la lu ma doon xaar ci moom la ndaxte tous les signes qu'il pose pour man ce sont des signes de quelqu'un qui sera candidat okay. parce que euh, nu mu ko waxee ci biir la bokkoon amul kenn ku mu jéem a préparer de l'intérieur pour ñu mën a xam ni am njortu ni parce que man toujours ma ne Macky Sall si ki mu am kóolute boo xam ne mën na gëmm takk ay bëtam bàyyee ko boppam kooku amul légitimité bu war muy Ablaye Daouda Diallo kooku la Macky Sall wóolu wóolute boo xam ne bi man gëm naa ni mën na ko bàyyi boppam. loolu nit ñi di mais boo ko génnee Podor googu mu doon leader. Hmm. amul benn envergure nationale. Hmm. demet waaw. ñeneen euh, fële bokki Diallo bi xaw ma je sais pas. bokki Diallo voilà maintenant ñeneen ñi nga xam ne am nañ envergure nationale Macky Sall wóoluwu leen à commencer par Amadou Ba. Hmm. donc quelque part situation boobu moo fi nekk loo mënti wax rek ci tu dois devoir le justifier maintenant nag man duma ko jiitu ci waxam bu nee du du ma candidat dina ma bett lool bu nekk bu nee candidat laa loolu lay xaar maintenant nag moom mooy xool l'essentiel moo di ni sénégalais yi tey dinañ yeewee ko dina leen yeewi ku nekk xam ci looy taxaw mais xoolal signes yi ba muy de recevoir maire yi nu ko monsieur le président docteur professeur waxee léegi nee na effectivement booloo leen nekk leen benn mais am na fu mu naan bu ma leen toppoon déclaré naa sama candidature bu yàgg. bu ma leen toppoon déclaré naa sama candidature bu yàgg. kon nga xool le discours de Paris. lu mu fa wax <laughs> da nga xool par exemple ba muy def interview ak l'Express. Mm-hmm. ba mu leen naan le débat juridique ne se pose pas et je pense même professeur mi. am na fu muy waxee naan juridiquement la candidature de Macky est valable. Hmm. kon ça veut dire que le débat juridique moom moom teg na ko de côté. après dialogue national bi mu ne je ferai un discours après la tabaski et ce sera un choix assumé. qui n'aura rien à voir avec la situation actuelle. merci beaucoup. looloo qui n'aura rien à voir avec la situation hmm. actuelle. amul benn situation amul benn influence. cest à bi muy jël. Hmm. c'est un choix libre. c'est un choix libre. kon nag boo xoolee si signaux yooyu yëpp. Mhm. tu vas dire que tous les sign mènent vers le oui mais nag comme il dit Macky et imprévisible. ah oui kenn mënu ko kenn mënu ko xaar foo ko mën nga ko xaar gauche mu génn droite kenn xaarul woon mu tànn Aminata Touré def ko tête de liste te pourtant moom la def. Mhm. kenn xaarul woon mu tànn Ablaye Diouf Sarr def ko tête de liste à Dakar. Mhm. te pourtant moom la def. kenn xaarul woon mu Amadou Mame Diop nekk président assemblée nationale donc ça veut mm. dire que Macky Sall ku koy séentu mm-hmm. droite jàppal ni mën na la fële gauche ki donc côté boobu noonu waaw dëgg la ko formé la ki ko formé la xam nga xam nga xam nga xam nga lu wuteel Macky Sall ak kii daa kii leelul rek kese loolu rek la ay rek <laughs> ki ko formé la c'est-à-dire que Macky c'est Wade la calvitie point final <laughs> c'est-à-dire que li Abdoulaye wadd am ci say xarañteef politique yëpp mu ngi ci Macky mais Ablaye dinay bàyyi. Hmm? dinay jàpp dara parfois eh. gars yi wax mu bàyyi. mais Ablaye bàyyi bàyyi lu rek bàyyi de. ah day bàyyi day bàyyi bàyyi de. non loolu d' accord. bàyyi lu rek du bàyyi Sénégal yëpp moo gën a moo gën a woyof. waaye bu jàppee du bàyyi. ah man yaa ko ande. Macky bu màttee du bàyyi. wax dëgg yàlla fi mu jamono ji ma toll nii. bëgg nga jël si avant cest mën na la mere fukki at di la signe fukki at te yàkkamtiwul lu muy def alors que Abdoulaye Wade mere léegi woon la may woon la ko léegi. après mu génn ci waaw loolu moo leen wuutale mais il a appris de Wade et aussi il ah, a appris de ñoom Albert il a été dans les dans les écoles de gauche xam nga nit ñi mm. dañuy fàtte ni Macky est un communiste à la base agi ah, la bokkoon mm-hmm, mm-hmm. c'est-à-dire que mm-hmm. stratégie ak tactique politique loolu rek lañ jàng ñoom loolu rek lañu xam leen naa nag situation daf ko maintenant on attend de voir qu'est-ce que ça va donner mais tey jii nii moom lu ci mënti am daal moom lu am solo moo di ni quelles son les motivations yu muy teg sunu loxo. si c'est le oui pourquoi si c'est le non pourquoi. loolu moo am solo. <laughs>